mbokk yi tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk di jataay bu ñuy sant yàlla di ko fi kañ di ko fi tagg di ko fi jéggulu di julli ci yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci xasida yi cheikhuna cheikh alxadim radiallahu anhu ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi daf koo def ci sun mu bokk ci jumtukaay yi muy yare jumtukaay yi muy defare jumtukaay yi muy laabale xol yi jumtukaay yi muy defare jukko yi jumtukaay yi muy yéege ab taalibe bu ko jàng ca sellal njàngin wa fan yi ci ginnaaw menn mbokk mu baax mu rafet ay waxiin ca mën a misaal ca ñàkk keñaan ñu koy wax oustaz Alioune Sall dafa wax ci xaside yi loo xam ne waxin woow ak déggin woowa ci moom laa ko mas a déggee ci moom laa ko njëkk a dana xaside yi daal ni mu ko gisee mooy day mel na bu ko doon misaal sëriñ Touba dane dafa composé ni mu ko waxee ci misaal dafa composé woo yàlla ba yàlla wuyu ko mu ne allo mu ne ko allo mu ne mu ne yow taalibe bi am waxal moom mu jox la ne la yow am waxal moom sa soxla ne moom xasida yi noonu la ko gisee day mel ne dafa composé ba jot yàlla ca yow xamoo woon numéro bi xamoo woon foo jaar ba jot ci mu jox la ko nag ne la léegi am waxal moom nag kuy wax ak yàlla nag teggin ya mu laaj kuy wax ak yàlla yar ba mu laaj kuy wax ak yàlla melokaan wa mu laaj kuy wax yàlla sifaat yamu mu màndargaal ak teggini jataay ba ak waxin wa ku ne war na ko caa dégg ci biir lool waaye misaalam moom moom wallu marra ma dégg ko ca muy misaal moo xam ne it bu ko waxee dana dana nangu dana ko nangu lool sëriñ Saam Mbay rahmatullahi alayhi wa radiyallahu la waxoon lu mel noonu dana woon da waroon a róoji waroon a wuti dugub ji ko waroon koo bay waroon koo wolli mu mag nga góob ko ngar ko def ko cim sàq dem soq ko foof ko wal ko tey ko cere laala ko delloo ko delloo siwaat ko mu doo ko nekk cere joo mën a jariñoo nee na Sëñ Tuubaa defal la lépp nag ba mu sotti mu ne la am lekkal léegi fa nga naroon jaar ci coono yëpp jaar fa mooy lan mooy mboolem xeeti ibaadaat yi jaamiinu yàlla yi boo ko seetloo seetandal ko ci xasiri Cheikhul Xadim radiyallahu anhu dafa nekk loo xam ne mi ngi ci biir jaamu yàlla yi donte nag damay wax ne bunt bu réyee noonu bunt bu màggee noonu it seytaane du ko bàyyi noonu rek mu jàll faaw mu feeñal ci jëfi boppam mooy waral léeg-léeg nga dégg ci ay waxin yoo xam ne dana wuuteeg ne ko Sëriñ Tuubaa jàppe woon ay waxin yu ëpp yoo xam ne dana wuuteeg ne ko Sëriñ Masamba ma ko doon maas jàppe woon na ko Cheikh Amadou Moussa borom barab bi jàppe woon na ko Cheikh Amadou waaye boobaa yooya waxin da ngay daal di xam ne lii waxinu seytaane la ngir bañ ñu jariñoo xasida yi ndax bu ñu ko jàppee ni ko Sëriñ Tuubaa jàppewu doon rek boobaa sunu jàppin mat naa xoolaat mat naa seetaat ca léeg-léeg mu am ci ay waxin yu ëpp yoo xam ne doo xam wax yii fu mu jugee doo ko mën a jëlee fenn fu lul wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim luy jaadilookum way na taxtumuhum innakum la mushrikun kon yàlla nañu sëriñ yàlla nañu yàlla jàpp ndal ni mu bëggee woon ni Sëriñ Tuubaa bëggee woon ñu jàngee ko xasida yi ni mu bëggee woon ñu jàppe ko xaside yi ba niñ war a jariñoo xaside yi ñu jariñoo ko xaside Cheikhul Xadim loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko yàlla defal bu baax a baax moo tax ndokkeel gi laa jiital di jéggul it ci ci jataay bii jataay bi lii nuru barab bi ñu toog yàlla seera leen sàkku naa ci mbokk yi ba tàyyi ndax man du sama baax ma toogoon ci suuf moo ma gën a loon moo ma gën a loon daa tolloog bu nee la nangam day defar ñii filmé ne nii gën a baax a ah, boobaa da jàpp ne man ngaa def la gën lañ jàpp ne moo gën a baax ngir ngir daroora waaye ñu yendoo tur turu yàlla yendoo jàng xasida sëriñ tubaay ba waxtu wi nga ñëw yow yow di jéem a toog ci kaw maanaam dëgg-dëgg di leen nuru luy xaw a tiim loolu wax dëgg yàlla nekkul nekkul suñu bëgg-bëgg nekkul lu ñu gën a lit nekkul it nag loo xam ne lu ñu taamu la ñu ngi koy jégg lu baax tomb bi ñu sàkk ñu waxtaan ci nag mooy taxawaayu jigéen ci lislaam taxawaayu jigéen ci lislaam bu ñu ne taxawaayu jigéen ci lislaam nag dana yaatu lool ñu jël ci ay misaal ci lu jiitu Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu waaye bu ñu agsee ci moom moom lañuy ñuy wone nag ni ko waa këram dundalee ni waa këram dundalee taxawaayu jigéen ci lislaam moo xam njabootam gi la moo xam soxna yi la moo xam soxna yi dongo yi la woon ni ñu taxawe woon seen taxawaay yu rafet yu mag ya ci lislaam mbokk yi lañuy ñuy njëkk a wax tuuti mooy lislaam lu jiitu muy ñëw jigéen dafa tekkiwul woon dara ku ñàkk ab cër la woon ku ñàkk wàccuwaay la woon ku ñàkk daraja la woon jigéen bu masaan di juddu bu masaan juddu kuñ mas a ñëw ci yow li ñu alxuraan nett li kuñ ñëw ci yow ne la bégal wa ida bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim yàlla nee na kuñ ñëw ci yow ne ko sa soxna amoon am na doom bégal sa soxna am na doom ju jigéen wa ida bushira ahaduhum bil untha nee na dhalla wajhuhu muswadda kanam gi day ñëkk ñuul kukk mer lool wa huwa kadim muy aji mer mer lool te tàmbali laaj nag nit ñi ndax sama doom ju jigéen ji dama koy tëj ci benn barab muy yooxu di yooxu ba ba muy dee walla dama koy jël suul ko nii muy xoole waaye amaa dund moom nag muy dund may dund moom wóota nekk ndax jigéen la du góor jigéen la du góor loolu lu jiit lislaam looloo amoon chrétiens yi maanaam ndaje am def nañu ndaje mu mag a mag ndaje mu mag moo xam ne la nekkoon jugé ba waxtaanoo mooy jigéen ndax góor ndax jigéen ndax nit la walla du nit ndax nit la walla du nit ñu wax ca lu yàgg yàgg yàgg ba mujj ñu ñu d'accord ne jigéen naam nit la waaye nekkul comme góor nag góor ay nit piir gi moom mooy ordinaire gi nekk ci wetam di ko wétli si indi indi yi niñ doon jàppe jigéen ci xeet yu bari ci ñoom mooy jigéen bu borom këram faatoo jaadootul muy dund ginnaaw borom kër ba faatu na bu ñuy taal borom kër ba taxanal borom kër ba am matt teg ko ca di ko taal jigéen jii di soxnaam nañ ko takkaaleeg borom këram taalaale ko ndax moom waratu te dund ndax nekkul ginnaaw ki ko ki ko yoroon yiir ko taxoon ko mottali woon ko mu nekk nit ko mottali woon nit ki ko mottali woon mu doon nit léegi nag kooka dem na kon nañ ko taal nañ ko taalaale arab yi daanañ wax ne jigéen buñ masaan di miraas miraas buy góor faatoo bañ koy miraas ni ñuy jale dàll ya jale ko kaala ya jale ko mbaxana ya ak jaasi ya ak mbubbi koŋ ya noonu lañu daan boole waale jigéen ñi ca ñañuy ñuy miraas séddale leen ni doom yi daan donnoo ni doom yi daan donnoo mbubb yaag dàll ya noonu lañ daan donn waale jigéen ña dañ daan donn waale seen soxnay baay dañ daan donn waale seen soxnay baay dañ leen ci daan boole waale ci miraas ma ndax jëppuñ ne ñii ay nit lañ boolewuñ leen société bi l'islam nag bi mu ñëwee ci tënk bu gàtt ndax loolu bu ñu ci doon xuus bu doon loolu rek moo ñu tax a mën nañu joxe ay amsaal yu ay misaal yu bare bare bari waaye dañuy bëgg ñëw ci waxtaan yi ndax ba du bëgg a jël ci temps bi lu bari insha allah bi lislaam ñëwee nag jigéen moo ci njëkk am ab cër lislaam jigéen moo ci njëkk am ab cër jigéen moo dalal lislaam moo teeru lislaam moo tatagal lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu nekkee ci waaru xiraa di fa jaamu yàlla nekk fa lu yàgg ba naa jibril fekk ko fa ba pëkk pëkkal ko wax ko baatam yu siiw mooy iqra mu ne ko man du ma jàngkat maanaa mu xoj ko ñu jaar fañ jaar ñetti yoon melokaan ak màndarga mi mu gis ci jibril tiitloo ko tiitloo gu jéggi dayo mu dawee ca xunti mam nekkoon daw ñëw ci kër gi ba mu ñëwee kan la fa fekk kan la fa fekk kii mu fa fekk mooy jigéen muy sayyidatuna Xadija lan la njëkk a def li tax ma ne moo dalal lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax waxam ja dassiruuni dassiruuni sàng leen ma sàng leen ma ti lool soxna sa sayyidatuna Xadija dalal xelam psychologiquement ne ko yow jokkatu bokk gi yow defkatu lu baax gi yow borom jikko yu sell yi yow yow yow yow wax ko qualité yi nekk ci moom ne ko xam ma loo mën a gis waaye du doon lu lay lor dalalal sa xel li nga gis lu mën a doon rek lu mu ñang-ñang nekkul lu mën a lay lor ndax yow nii nga mel doo lor kon benn mooy yoon wu njëkk wi may wax ne loolu jigéen ñi war nañ ko ci jàngee yàlla loolu la wax li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma li taskunu ilayha góor bu demee ci àll bi liggéey ba sonn jigéen moo war nekk asakanu rooxee ci moom bu ñëwee moo ko war a dalal góor bu demee nekk ci àll bi nekk ci problème lijjanti lijjanti dépense amu ko bu ñëwee jigéen gee ko war a dalal xamal ko na dépense du problème bu subaa naa jéem a lijjanti naa jéem a laqarti waaye yow de waroo nelaw tey waroo tëdd xam nga foo teg sa sa tàng sa sa bopp tey de waaye yow waroo nelaw ginnaaw dépense amu fi déedéet jigéen du wax loolu. moo tax soxna si it nag mënoon naa wax yonent bi ne ko ah fa nga nekkoon ba lii daal la dellu fa ni ko jigéenu jamono ji waxee foo nekkoon ba heure bii loo fa doon def xamoon naa ne da nga jommi jommi mënut a ñàkk ci yow di beru rek doo nekk ci kër gi say soxna duñ la gis da nga jàpp da nga jommi mën na ko wax loolu ndax nit la waaye wax ko loolu da koo daral ñaareel état bi mooy. mu seet ba xam lii borom këram bii gis ndax lu baax la lu lu koy jariñ wala lu lu bon la lu koy lor ndax jibri ndax malaayka la wala seytaane la mu dind muuraayu boppam mu dind muuraayu boppam ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko déedéet gisatuma ko mu dellu suwaat muuraat boppam ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko waaw maa ngi koy gis mu dindiwaat muuraay gi ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko déedéet gisatuma ko ba muy ñetti yoon mu ne ko kon du seytaane seytaane bu ma dindee sama bopp day gën a jege waaye du dellu gannaaw kon li nga gis xam ma lu mu doon xamaguma lu mu doon waaye lu baax la mooy kon premièrement dalal na borom këram moralement deuxième point bi étudier na examiner na maanaam natt na li li borom këram bi gis ba xam lu baax la lu baax pour gën a confirmer daloo xelam ñetteel ba nag mooy mu ne ko nañ ànd am naa fi ku ma xam góor gu mag gu bari xam-xam. bu yàgg jàng téere yi lii ñu gis bu demee man naa am mu xam ci dara lu ñu mën a leeral ànd ak borom kër bi dem ci waraqatul nawfal ba mu demee ci waraqatul nawfal ne ko sama borom kër bi day daa am lu muy gis na la ko leeral nga dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko melokaan yu mu gis ci jibril melokaan laafi melokaan jëmm ji ak raglu gi mu ne ko yow day na muusu muusa maanaam malaayika ma muusa daan gis moo la dikkal ne ko aka neexoon bis bu lay génne di la bundu mu fekk ma nekk sama digg doole ba man laa jàppale yonente bi sallallahu alayhi ne ko kon danañ ma génne mu ne ko waaw wow danañ la génne danañ la bundu xataal danañ la fitnaal ndax lii nga indi kenn du ko indil aw xeetam ca loolu dëll kon ñett jigéen ko def ñett yooyu yëpp jigéen a ko def ban moo ko ñeenteel mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu naan dasfiruni dasfiruni sàng leen ma sàng leen ma yàlla ne ko yaa ayyuhal mudassir qum fa andir sàngu jeex na tëdd jeex na nopp lu jeex na jugal waar nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne man mu man kan laay waar kan laay woo ci lii nga xam ne xama xamaguma lu mu doon kan laa ci woo sayyidatuna Xadija ne ko man sayyidatuna Xadija ne ko man jigéen moo njëkk dugg ci lislaam lislaam jigéen moo ci njëkk a dugg moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a sa baat seede yi mu wax ko jigéen wàcc waayam ci lislaam dafa yàggam kon bu ñu nattee yooyu yëpp jël ko dañuy xam ne jigéen am na cër ci lislaam beneen cër ci lislaam bu ñu mën a wax jaar ci jàll mooy kerug lislaam bu bu keroo tey nii lëw ku nekk mën a wax ab jullit laa di fëgg sa dënn ker gi di la yiir di la keral nga nekk ci biir keppaarug lislaam deret deret ja njëkk a suuxat kerug lislaam googu garabug lislaam gi deret ja ko njëkk a suuxat deret jigéen la sayyidatuna Sumayya moom lañ njëkk a faat ci lislaam jigéen njëkk gëm ci lislaam jigéen lañ njëkk a faat ci lislaam kon jigéen sañ naa bàkku ci kaw góor ne ko cëru lislaam yi maa la ci jëkk cëru lislaam maa la ci jëkk maa njëkk a gëm jigéen a njëkk a góor ga ca tege di sayyidatuna sayyiduna Abubakar Siddiq ka ca tege di représenté xale yi di sayyiduna Ali jëm ci ndaw moom it beneen cër ba mooy lan mooy alquranul karim di téere bi nga xam ne mooy li lëkkale jaam bi ak ak boromam subhanahu wa taala nga xam ne jaam bi daf ko war a fonk téye ko sàmm na rawatina taalibe bi Sëriñ Tuubaa damay wax ne moom alquran ku nekk ca war a amul cër ku nekk ca war a góorgóorlu waaye rawatina taalibe bi Sëriñ moom mi ne woon fa kul képp koo xam ne képp képp kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin qad yusim képp koo xam ne man man Serigne Touba nee nga maay sab Serigne te muy dëgg ci yow waxul na nga jàng tey bu subaa nga bàyyi fal yudim la wax na nga saxal jàng alquranul karim am murit sëñ su xëy suba ba ngoon jàngut alquran loolu am murit boobaa sëñ Touba digal na ko mu lànk sëñ Touba nee na ko defal mu ne ko defuma boobaa nag bu la sëñ Touba digalee nga lànk nag maa ngi sonal sëñ Touba boobaa war ngaa seetaat sa digge sang murit sang murit nu mel gan murit nga am gan xeeti murit nga am sëriñ Tuubaa loolu la wax radiyallahu anhu dem ba naan wajal bi jaahil muntaqa xayaati riayat al qurani dil ayat dafa wax ne ñun ñëpp amuñu dund ñun taalibe amuñu ak dund sunu bakkan yi sunu alal yi sunu lépp sunu doole sëñ Tuubaa moo moo ko moom ñun moom lañ ko jaayanteel am déet moo ñu tax gàddaay suñu kër maam yi ñëw sëriñ Tuubaa nag nee na loolu jël na ko jël na ko tayle ko moo tax ma ne bu ne sama dund damay ñaan yàlla sama tund yëpp nekk sàmm alxuraan kon ku mu doon ci ñun war na ne ko man de sama dund sii nga xam ne yaa moom dinaa la fas yéene jàppale ci lii nga xam ne moom nga doon bëgg wajal bi jaahi mu taqa xayaati riayat alquran di téere boobu di alquran mbokk yi am na jamono yoo xam ne benn kaamil moo nekk ci àdduna bépp benn kaamil moo nekk ci àdduna bépp alquran nañ ko ñaari dagale wala ñetti dagale dagale bu njëkk bi Zayd ibn Saabit dane kunna nuallifu alqurana fi bayti nabii sallallahu alayhi wa sallam ñun dey daan nañ dagale alquran ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba ci lan lañ ko daan dagalee ay xeer xeer yi lañ daan ci lañ daan bind alquran da ko yaanu di indi ay der yu ñu wulli ay pooji maanaam yaxi yaxi giléem wala ay daram xolliti tàndarma yooyu lañ daan bind ayat alquran yi di ko dagale ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dagale mu nekk ab kaamil mushaf benn kaamil ñi ngi ko njëkk a def si jamonoy Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu jamono Seydina Abubakar Sadiq bi yonent bi demee daa am ñoo xam ne dañ ne woon dootuñu dañoo weddi woon weddi woon lank ñenn ñi di wax ne dootuñu joxe asaka ndax yàlla yonent bi la doon wax xud xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yàlla yonent bi la joxoon am amrin ji yonent bee ko moom dana ko woon jëlal xud yow Muhammad ginnaaw Muhammad nekk du fi nekk duñ jox kenn asaka aw déggin la seenu déggin la lànk abubakar sadiq ne danaa fexe lu ñu daan nangul lislaam daanaka nangul muhammad ku ma ko bañal danaa xeex ak yow xeex yu bari di ci am musaylimatul kaddaab musaylimatul kaddaab di koo xam ne di koo xam ne danaan wax ne nangu na moom yonent bi yonent la waaye moom it yonent la loolu daan wax daan wax ne nangu na moos muhammad yonent la de waaye moom yonent la daan diir mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa yontu sasam bi ko musaylima diiree mbagg cheikhuna alxadim attaqué na ko attaque bu bu kenn musa dégg kenn mus sa xam mbindin woowu sax mbindin woowu kenn musu koo xam ci mbindinu sëriñ Touba radiyallahu anhu day wax ne sëriñ Touba daa ñëw yonent bi dafa ñëw ba dem junni at ak lu topp sëriñ Touba feeñ mu ñëw gis ci histoire ne am na ku ñuy wax Musaylimatul Kazzab da doon diir mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne wax ko wax ji waaye waay Serigne Touba kon bu jàkkaarloo woon ak kuy diir mbagg yonent bi nu muy def bu ngeen jàkkaarloo woon yaa moom nu muy def lan la waxoon dana woon dalla musaylamatu xiina jaara man fi sama wal ardi yu jaara dillata man wastal mala taxawata wa baala uryaanan wa jahran darata Serigne Touba radiallahu dafa wax ka ñuy wax Musaylamatul Kaddaab de torox na torox na torox tàngeel lu rëy ñu ne sëñ ñu mel ne dañ ne sëñ bi lan moo ko yóbbee torox tàngeel mu ne dafa diir mbagg sama sang ba nga xam ne waa asamaan ak suuf kenn du ko diir mbagg ñu mel ne dañ ne ko nu la mel mu ne torox tàngeel la mi ngi mel ne ku dem ba ci digg mbooloo mu bari mu kenn mënut a ngir bari guñ bari ñëpp toog nga taxaw fa ñëpp la séen nga génne sa awra tuur fa ndox yemoo fa nga summi sa tubéy dem fa wanag ñu jàkkaarloo yow yemoo ca nga ngelawal fa ngelawal wa xumb wa jëhëran darrata a dart bi la ko mooy ngelawal wa xumb waaye mu ne wa jëhëran ñëpp dégg ko nee na kooku gàcce ga mi am bu noppee nee na gàcce ak musaylamatu yawmal xiyaam moo ko gën a suñu bànj xuja bale ne ko mbàkke man lii yaakaaroon naa ne sa xalima du koy yuut du bind lu mel nii mu ne ko ku bañ sama sang ba doo xam sama teggi ni xalima ku bañ sama sang ba doo xam sama teggi ni xalima musaylama moomu ci ñu doon contre bokk bi ñuy xeex ñoom nag ñu bari ci jullit ñi ñi mokkal alxuraan alxuraan am na ñu mokkaloon lépp ci biir saxaaba yi waaye am na ñoo xam ne dañoo mokkoon ay saar ci alxuraan am xare boo xam ne nag bi ñu ñëwee dañoo rey ñu bari ci ñi mokkaloon alxuraan Omar ñëw na Aboubacar te ñoo dagale alxuraan ba mu nekk ci benn kaamil bu ñu ko deful da danañ dem ba ci kanam alxuraan ji am lu ci manqué. ce kon ñoo nekk responsable yi Aboubacar daal di koy rëy lool Aboubacar Siddiq daal di koy rëy lool daal di ne nan laay defee loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ba faatu musu koo def dund na ba faatu musu koo def Omar te koo bàyyi te koo bàyyi ba ñu dagale alxuraan mu nekk benn kaamil ci tënk bu gàtt mbokk yi biñ ko dagalee. Aboubacar yor ko bi fi Aboubacar jugee Omar yor ko radiyallahu anhuma bi fi Omar jugee nag radiyallahu anhu sayyidatuna Hafsa di doomi Omar ju jigéen nekkoon soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yoroon kaamil bi kon ndeke jullit yi ci àdduna bi am na jamono yoo xam ne benn kaamil moo nekk ci àdduna bi du ñaar du ñett jigéen moo ko gardeeloon xeet wi jigéen moo ko gardeeloon xeet wi moo ko doon aar moo ko doon sàmm donc lu gën a rëy loolu ci ab cër bi Seydina Ousmane di dagalewaat alxuraan ci dagaleeg ñaareel gi nga xam ne Xusayfatul Yamaani moo demee Iraq ñëw delsi wax ko ci ay wax yu bari ay ay ay ay mbir yu so soppi ko yu nar am ci alxuraan ak ay wuute ñu dagalewaat alxuraan ci jamono Seydina Ousmane ba Seydina Ousmane di abbu kaamil ba Seydatuna sa soxna sa dana ko danga may waatal ndam ko delloo ba noppi waatal ko mu jox ko ñu xool kaamil bi. Zayd ibnu Saabit moo ko doon def te jamonoy Aboubacar Sadiq yàlla da yàlla may ko xéewal moo ko dagalewaat jamonoy Ousmane am na xéewal lool ci alquran kon loolu day mandargaal cërub jigéen ci lislaam jigéen ñi xare xare li gënoon a metti ci lislaam mooy xare ca xare yi jigéen ñi daawuñu toog loxoy neen daawuñu nekk ca kër ya di xaar góor ña daawut am saa xare masaan takk jigéen ñi dañuy laxasaayu topp ci góor ñi bu ñu maree ñoo leen may ndox kuñ ci jam ñoo lay faj waaye daawuñu toog ci kër yi rek ne xaar góor ñi bañ jël si jigéen ñi daawuñu def loolu jigéen ñi bu islaam masaana soxla yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana dem xare léeg-léeg dal ne damaa soxla damaa soxla alal ju bari ngir waajale ko suñu xare bii ñu jublu war a defar ay jaasi war a defar ay mbubbi koŋ war a defar ay mbaxana war a defar ay fett yitte woon a alal jigéen ñi ñoo daan dagg seen péqal ma ya maanaam seen lam ñañ daan takk seen tànk ya lami or ya moom lañ daan dagg di sànni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbalaat mi mu lal kon jigéen ñi yàgg nañoo am wàccuwaay ak cër ci yàgg nañoo financer l'islam pour delluwaat ginnaaw tuuti l'islam l'islam jigéen a ko jigéen jii ma doon wax moo ko teeru moo ko dalal mais moo soutenir l'islam Khadija Khadija yàlla da koo mayoon ab alal bu doon jamono ji am milliardaire la woon bu doon jamono jii Khadija am milliardaire la woon radiyallahu anha moom moo moo ta dalal l'islam ba njëlbeenu l'islam financement yëpp moo ko gàddu woon financement yëpp moo ko gàddu woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma saan di wax ci moom daw ci am sago bu ma saan di nettali ci Khadija yonent bi war maa leen ko ba diirub Khadija ngi dund yonent bi tëkkul soxna benn soxna diirub muy dund yonent bi tëkkul soxna yonent tëkk moo magoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye diiru muy dund yonent bi tëkkut soxna bi mu faatoo la yonent bi doo ko takk soxna mboolem doom yi yonent bi amit doom yëpp Xadija la ko amal ba mu des benn doom képp doom yi ci des yëpp Xadija la ko amal bu ma sànni di wax ci moom léeg-léeg jigéen ak ni mu fiire rawatina sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha léeg-léeg yonent bi daan wax ci Xadija Xadija defal na ma nangam Xadija defal na ma nangam Xadija defal na ma nangam Xadija defal na ma nangam mu ja Aysa ne ko dal di dal di fiiraange ji dal di ñëw dal na ko waay waay ki ngay wax moom ak màggat la woon rek boo xam ne euh, suuf lekk na ko bu yàgg xale bu ndaw toog sa wet nga nekk tudd màggat fii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko màggat mooma du ma ko jënd kenn ba ma bañ ma weddee moo ma gëm bañ ma wonee ginnaaw moom a jàppale mu nekk sama wet biñ ma xañee moo ma jox ba ma moo ma wéet li kon kooku du ma ko jënd kenn loolu nag góor ñi moom loolu néew na ci ñoom góor ñi loolu moom néew na ci moom so so ab aawa aawa bu jàmbaare nga xam ne bañ la koy may amoo dara sax néewaa na góor gu ko jox ab cër léegi jër ñu bari bu leen soxna seen soxna feloon seen jimiñ noonu dañ naan ko waaye damay rek yaa fi ne xam nga ne moos yaa fi ne daal ko neexal na position yoon tamit nañ ko xam ku faatu bañ sol rob ko ci bàmmeel nga koy défendre góor gu ne war na cee bàyyi xel war na ci jël bind kon l'islam jigéen yàgg na cee am ab cër yàgg na ci am ay taxawaay mbokk yi li ñuy dund ñun ñun li ñuy dund nga xam ne moo ñu taxa suñ maam ya gàddaayee seen kër ya bàyyi seen àll ya bàyyi seen tool ya ñëw fekk suñu sàng ba sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu muy tasawuf luy sellal roox day wax ne ay tabax yu rafet indiwuñu fi tabax yu rafet oto yu rafet kër yu rafet nangam yu rafet indi wuñu fi dundalul nag sunu sunuy roox ab mutasawwif it nag bu demee ba loolu gën koo occupé ab xolam ci boobaa war naa yëg ne xolam wéradi na ñun sellal suñ xol yi laabal suñ xol yi moo ñu fi indi xam-xam indi wuñu fi xam-xam njàngum xam-xam rek indi wuñu fi maam ya déedéet jaamu yàlla rek bu nga def programme ba nga daan def indi fi ma ne see mel ni misaal sëriñ Mouhamadul Amine Gueye jëmmooy keroog bi mu seetee sëriñ Touba ba gis ko ñëw da ko siyaare si woon rek dellu jëmmooy ba mu demee ne waa jëmmooy ah man de damaa siyaare ji woon waaye maa ngi seey maa ngi seey maa ngi dem de ñu ne ko lan ngay wax nii mu ne maa ngi dem de kee ma gis damay dem de ñu ne ko dem mu mel ni ab dëje fi xew mbokk yëpp wër ko sa xam-xam bu bari bi sa jaamu yàlla gi sa ragal yàlla gi sa jikko yu baax yi sa sa lu nekk ñu wax ko daal ni nga mel daal yow kan ngay war a gis ban doomu aadama ngay war a gis naan da ngay topp ci moom mu ne leen li ngeen mboolem li ngeen may taggee ni mu ko mën a misaale mooy ku yor kaasu bit kaas bu ndaw def ci ndox mar mar wu tar mar wu metti di ko seeraan bal di guux par tuuti ngir bañ mu jeex gis ku géej ne la sotti ci ñu boole damay dem sotti ci rek ñu boole waaw man du ma yor sama kaas bi damay dem sotti ci géej ñu boole ne leen noonu li ngeen di wax noonu la mel kon xam ngeen ni kon liñ doon nañ ko naw ci mboolem waaye Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ne moom dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo maanaam dimension bi mu nekkoon tolluwaay bi mu nekkoon boo gisee ñu daan ko wax naan daa nitewut du dara lu may askan yu mu feeñ ni ñu baaxee ni ñu selle ni ñu manee jaamu yàlla ci ñaari wet yëpp ñaari ci askanu ndey ak baay hmm? ni ñu ni ñu ragal yàlla ni ñu taxawal islam ni ñu baree xam-xam ku ñëw ne leen am na lu gën a baax lii dañ naan na kii moom liy wax nii loolu rek la day wax ne mag ñi bi ñuy wax sëñ tubaab ñoom kenn waru leen a yedd parce que ñoom yaakaaruñu woon ne lu gën a baax liñ nekk mën naa am sëñ Tuubaa moo tax bi mu ñëwee woon leneen lu gën a baax lii mën naa am ñu ne nag kii daal dama yaakaar ne daa dese ndax lu gën a baax lii mu tam may wax ne mboolem dundam gi mu ngi ci nekkee woon di wone ne lu gën a baax lii man naa am ba ñëpp gis ne lu gën a baax lii mën naa am mbokk yi wax ne mbokk sëñ Tuubaa kenn gënu leen bi biñu demee ba sëñ bi woon leen ne lu gën a baax li ngeen yoroon a ngi nii ñoom ñëpp ñu bàyyi lañ yoroon fekk sëñ Tuubaa loolu lu kenn gis mënu koo gis say mag say nijaay say bàyyi ci mbokk ci wàllu mbokk sa sa sa mbokk yooyu yëpp nangoo bàyyi ko suufe ñëw toog sa kanam rukk nekk nga dendu seen sëriñ ñoom it kenn gënu leen ku rëy du ko def ku bëgg darage du ko def ku bëgg àdduna du ko def kuy wuti tur du ko def waaye ñoom yàlla lañ doon wut bi ñu gisee ne yoonu yàlla wu gën a gaaw wu ñu nekkoon a ngi nii Seexul Xadim wan leen ko dañoo bàyyi lañ nekkoon fekk si kon mbokk yi bu ñuy wax ci jigéen wàllu tasawuf googu ñuy waxee nag jigéen ñi yàgg nañ cee am melokaan yu dul jeex man see jël kenn rek muy rabiatul adawiya rabiatul adawiya soxna su yéeme la woon nee nañ àgg ci bu masaan toog nii ba taalibe yi xaw koo sonal cam yitti yàlla danaan safeet yéega ba kenn noppi koo jot mu ferenk laay ci asamaan seeg suuf di àggale ay daan def loolu boo jàng karaamata awliya danga ci gis daan def safeet kon dara jëy soxna mu yàgg raam mbokk yi loolu mooy am di am ba lislaam feeñ Sénégal loolu di am jigéen ñi góor góorlu jigéen ñi wane njàmbaar jigéen ñi góor góorgóorlu jigéen ñi wane njàmbaar ñu jële ko ci misaal ci Cheikhuna al Xadim seen nga la borom xam see waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax Sëriñ Tuubaa nekk lem na ko woon yàlla musa dañ ba mu bindee aadama ak léegi musa dañ di la di a tànnal askan woo war a feeñ ñaari waajur yëpp askan yooye ñoom ñëpp yàlla di leen tànn di leen tànn di leen sélectionné di leen sélectionné di leen sélectionné ba nga feeñ ci mënut a ñàkk mënut a ñàkk kon loolu bi ñëwee ci jeexal Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ku ne xam na soxna Aïchatu Waalo soxna Sawaalo ku ne xam na taxawaay yi amoon ci lislaam nee nañ daawud delloo ab téere moo xam téereb naxwu la moo xam téere mantiq téere fiq téereb usul téereb bayaan téereb mustalax loo mas a jox teg ci kanam soxna Aïchatu Waalo mu jàngal la ko nee nañ daan daan sol danaan solu ak ak colom kaalawu mel ni ki góor toog ci biir donga yi ngir bañ koo déranger ay at ay at yu bari ñeneen ñuy wax lim bii ñuy wax lim bii waaye daal ay at yu bari yoo xam ne nee nañ musta tëdd musta tëdd ci kaw lal ca defar jafa naafila kaamilu alxuraan ba noppi balaa tëdd day naafila kaamilu alxuraan bi doo ko tëdd kooku ki la yàlla tànne soxna jaaratullah waajuru cheikhul xadim radiyallahu anhu mu tàggat ko defar ko jàngal ko ba doon kim doon ba ba soxna jaara doon kim doon àdduna bépp xam ko te ñu bari ci soxna yi nekk jataay bi ñu ëpp laay ñu ëpp ci soxna yi bi ñoo mag soxna jaara ñoo ko ëpp ay at fii ni nii ñoo ko ëpp liñ dund soxna jaara dund ko koo xam ne fanweeri at ak ñett la dund àdduna bépp dégg la ñëpp xam la buñ demee ku ci dem poroxaan xam nga li gis buñ demee poroxaan li nga gis fii la soxna si doon soqe fii la doon jullee yor yor fii la doon fii la doon fii la doon rek ngay dégg nga xam ne kon ku amoon activité yu bare baree bari la yooyu kër géeg yooyu jaamu yàlla dara daw ci yàqal morom équilibre ci diggante jaamu yàlla gi di mat sëkk maanaam wàllu këram di mat sëkk koo doon soxna jaar nee nañ bi muy ñëw kër li ñuy def li ñuy wax ndénkaan biñ ko naree def soxna Aïcha wala dane ah jërut jërut wax ji bari ndax lu ngeen wax ci moom ca fekk nekku doon ci moom munu tey nekk tey tey waaye li ma def ci moom daal am naa kóolute ci moom nañ ko bàyyi mu dem soxna jaara mooma ñëw ci kër sëriñ Mambaran Sali sunu sang ba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu feeñ ki nga xam ne moo protégé l'islam ci Sénégal réew mi ñu nekk ku fi ku fi maanaam ku fi noot ko julli Sëriñ Tuubaa dana am pour santasam mu neex la mu naqari mu neex la mu naqari la képp ku fi julli Sëriñ Tuubaa dana ko envoyé pour am parce que ba muy ba muy taxaw bu bu résister wul woon buñ ko écrasé woon buñ jaaroon ci kaw jàll ci kawam jàll waxuma ne waxuma ne lislaam di fi am de waaye mbokk yi dina néew lool wallahi alazim bu dul woon taxawaayu Sëriñ Tuubaa ba mu taxaw li ko lislaam jaral ba mu daj ci lim ci daj nangul ñëpp seeni coona gàddu lépp gàddu tumuraanke ñëpp gàddu métti si ñëpp dem ba delsi bu dul woon ak taxawaay boobu bu dul woon ak taxawaay boobu waxuma lislaam du fi am waxuma loolu de waaye taal jàngu yi dana néew quatre vingt pour cent quatre-vingt-seize pour cent yi wax ci Sénégal kon du fi am loolu ma mën a ko waat kon du fi am waaye résistance am ba moo jox lislaam doole fii ci Sénégal kooku feeñ ci kooku it njabootam gi feeñ ci ñoom ñu yar leen ci dañ ci tudd ñenn rek mbokk yi ndax waxtu yi moo moo ñu xoj ñu ngi jeexal Sëriñ a radiyallaahu anhu xoole njabootam gi lan ngeen yaakaar ne moo tax ñu daan tuddee soxna mu'mina doom tuddee soxna may maymuna doom alkubra wa suxra tuddee soxna muslima doom so soxna mbenn gaabu doom soxna aysa gaawaan doom lan moo daan tax nga daan ko doom jox ko da ngaa gis ne nii soxna muumi mel nii soxna may mel tànnu na xemmem nga ko xemmem gu jéggi dayo nga bëgg am am soxna moomi njaay wala soxna moomi jóob soxna moomi kebe soxna moomi sàll sa nga jël sa doom tu jul ko muy jigéen nga tudde ko ko jox ko ko mu dem copier la mu copier ji la soxna may ba mu ñëwee buy wax na ko soxna may yare jikko jam def ci moom na ko def yam ko jàngale ab liggéey na ko tàggate la nekk ci moom ya nga doon xayma soxna may la attan la ci ndabam attan boo tanul lépp la ca ndabam attan tànk na ca duy indil la nga xam ne ay tànneef lañ woon ñoom it tànneef lañ woon ci wet yëpp dan daan daan bokk ci mboolem lépp jigéen lépp lislaam lépp yoonu murid jigéen kenn mënu leen ci woon buñ jàllee taalibe yi noonu mbokk yi taalibe yu jigéen ñi kenn mënu leen Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lim ñu ci bàyyee ci ab santaane bu wér bokk na ci jumaay Tuubaa ji jumaay Tuubaa ji kenn mënu ci jigéen ñi kenn mënu jigéen ñi jumaay Tuubaa ji kenn mënu ci jigéen ñi sama waajur moo ma nettali sama waajur wu jigéen hafizahallah mi ngi dund yàlla dogal la ko jamono Cheikh Moustapha ànd na ci liggéey ba jamono Serigne Falilou ànd na ci liggéey bi ba nit jumaa ji sottee waaye bu lay leeral taxawaay yi jigéen ñi daan taxaw buñ ma sànni wax biton ba tooy na subhanallah mbokk yi pëstee fi murid yi nekkatu fi de nekk amatu fi ñooña wallahi dem nañ moo tax nga gis kuy ja kuy lu naan naan ñu lay tëkkaleen mag ña ngay ngay ngay ngay ngay sogale ko ah, nga mag ña de mbokk yi biton ba tooy na ca jumaa ja biton ba tooy na jigéen ji ji doon bëgg a ñulug ab ab ñulugam wala mu doon bëgg a tay wala mu doon bëgg a sóor day tegg ci li teg ci suuf du àggale añ ba da xanaa bidon ba bidon ba jeex na anamu gisati ngeen bidon ba tooy nga tegg sa cin bidon ba tooy na nga xooj sa yére di bëgg a fóot këpp paan gi ci kawam bidon ba tooy na ngay bëgg a gome sa yére lemaat ko bidon ba tooy na ngay bëgg a paase lemaat sa yére wan ko ginnaaw ne xanaa bidon ba jeexee loolu lañ doon ay gamaat lañ daan yor ay gamaat lañ daan yor am na ci jigéen ñoo xam ne sax gënoon nañoo yéeme so am na ko ñuy wax soxna Ndiaye Guèye euh, soxna fan Ndiaye la mooy yaay soxna Ndiaye Guèye moom la soxna fan Ndiaye la jigéen ñu xam fii ñu bari seere nañ ko booba gaar bu mag bee fa la saxaar gi daan yem fa la ñuy wàcce ciment bi soxna fan Ndiaye la ñaari saako lu daan tegalee gaar bu mag baag si fii ñaari saako ciment kan moo ko ci mën ci ñun kan nañ wax rek. kenn ci ñun moo ci mën a tegale ñaari saako ciment di gaar boobu fii kan ci ñun kan ci ñun mooy wane fesug jigéen ñi damaa joxe misaal ci kooku rek waaye fesug jigéen ñi jigéen ñi daan féeri ca carrière ba ñi daan féeri ba dañ daan xonq coy coy coy coy bu ñu ñibbi ndax duñ buuse duñ moytu carrière bi duñ faxasu nag luñ gën a takk rek gën nañ ne ci la ñuy gën a mandarga woo ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ñi daan féeri ci bidon noonu ñi daan féeri ca suuf noonu ni ñu ko daan xàjjalee mbokk yi kenn mënu leen woon ba fii ñu toog soxna yi tey xoola xoola jigéenu Tuubaa volontaire bi yàlla def si ñoom mënoon nañoo toog jigéeni Tuubaa mënoon nañ leen dékk ay micro ñuy kaas naan commune bi ñoo war a bale suñu mbedd yi balewuñ suñu mbedd yi xoolal ni mbedd yi taqe waaye koñ boo dem bu alxames yi ñëpp génn ku leen di fay salaire Cheikhuna al Khadim du keneen de yaakaaruñ ci kenn yaakaaruñ ci mairie yaakaaruñ ci kenn maanaam ni yàlla defee ci seen roox ba fii ñu toog rek fi ne boo laajoon addiye ñoo ci man góor ñi noonu lañ mel de loo woon tey fii ne am na lu ñu ci ji nga laaj ci addiye ñoo ci man góor ñi loolu moom ñu ci am loolu maanaam am nañ ab cër dañoo am wàccuwaay dañoo am ab cër bu réy réy réy ci lislaam moo tax bi ma mbokk yi waxee taxawaayu soxna yi ndax xam nga daayira bi moom day wax ne day daayira bu sel daayira boo xam ne wax dëgg yàlla naw naa leen man yéem naa leen lool sore na sore na ngi sal lool sore na ngi sal lool waxtu yu ma njëkk a gisee daayira bi deux heures du matin la wala lu manqué tuuti ma romb ci jumaa ji waaw jumaa ji gis leen seen melokaan yi di ay ndaw ñuy lu ci regard yi ñu yor ay brouette ku lu nekk waaye nit ne ma xalaat heure bii gaa yaa ngay nelaw ñee ngay lu batiku ñee nga ci nal li neexe ñu du ko wallahi dama dawal dawal mënu maa dawal ma gaare sama donko ñu toog ngir rek yéem guma ma maanaam defin yi yéem sellu mbir yi xam nga fi ne njistal njistal day yàq lu bari ca waxtu woowu du waxtu njistal waxtu min wi jëm kaw koo njistalal mënoon nañ tey fi ne bu yoor yooree ñuy xat-xat loog sareet yeeg oto yi ñuy baare naan mañu ñu bale fii mañu ñu def nangam fii ñépp xam ne ñii ñooy ñooy def lii waaye ñun dañuy xëy rek di julli ji àjjuma ñëw fekk affaire bi set rek ñépp dañuy xëy rek di julli ji àjjuma fekk jumaa jéeg li ko wër set wecc ne ko ña ñu jaayante woon bàyyi seen nelaw biij la ca boo julli jee ñu julli ji liggéey boobu nag bu nee jigéen ñi kenn mënu leen ci war naa mën a am sunu sunu sunu jur yii sunu yaay yii sol yu bula yi di ñoo xam ne tey fu ne jaar nañ fa waaye ba léegi nangu ñoo bayee gone yi mbir mi dañuy giiroo ba léegi boo leen fekkee ñuy bale alxames boo leen fekkee ndeysaan ci yor yor gi sa yaram day daw da gis koo xam ne da leer ne bu demee këram pour mu jug ci ab lalam problème la sama yaay laa ko xamee ba ni mu tëlee mënut ñëw moo tax waaye da daan da daan da nga daan wax ba tàyyi mu ne la faaw ma dem nga ne ko yow yaa yaa ngi àndoon ci liggéeyu jumaa ja sëñ Fallou dagale woon na leen ni leen yéen si li sëñ Tuubaa bëggoon ci yéen sottal ngeen ko loo mën a wax mu ne la damay dem de. bu demee ba ñëw lu yaram bi metti metti lu mu sonn sonn sonn ba ba bis bi del si bu alxames jotee moom nga gis ko moom fajar teel mu sol lu bulaam wal na ne moom mënoo ci man dara damay dem sunu yaay yëpp noonu lañ mel maanaam rawxaani yeeg ci ci ci ci bëgg ngërëmul sëñ Tuubaa gi nekk ñoom ci jaamu yàlla gi nekk ñoom mbokk yi am nañ ci yaakaar loolu yàlla bu benn liggéey tépp yàlla bu jenn yaakaar tas mboolem li ñuy nekk di ko yëngutu yàlla na yàlla na dëppoo bëgg-bëgg sëriñ Tuubaa radiyallaahu mooy koo xam ne bu bëggee ci ñun yàlla bëgg ci ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñun ndax moom du bëgg ngir ngir lenn ni àdduna du bëgg ngir lenn ni bànneex du bëgg ngir lenn ni bakkan moom buy bëgg ci bëgg ci bëggum yàlla la koy teg ci bëggum yàlla la koy teg wama abaahu yaa baahu wama yaa baahu abaahu kon kooku war nañuy jéem a dàkk am bëggam léeg-léeg nga dégg nit mu naan la boo nee boo nee damay sàkk ngërëmul sëñ tubaa mu naan la ngërëmul yàlla lañ war a sàkk waay waay ngërëmul sëñ tubaa boo koy wax ngërëmul yàlla bu lay gërëm yàlla la gërëm buy gërëm yàlla gërëm bu lay gërëm yàlla lay gërëm jaam bi wax naan la ngërëmul sëñ tubaa jubluwu ci sëñ tubaa du n'importe qui ki muy sàkku ngërëmam xam na ko xam na ne nit la koo xam ne xanaa nga ñàkk a am cachet bi waaye sëñ tubaa mu nag tàppaneel moo tax damay wax yëpp buñ maase woon ñëpp buñ maase woon di la wax naan doo ab taalibe amoog taalibe doo am murit bul ko faale fexeel ba nooy lijjantee ba am tampom sëriñ tubaa mu ne la murit nga sa affaire baax waaye gaa yëpp bu leen wax murit saadax nga murit saadax nga ngay jaayaaru rek ci amoo cachet sëriñ tubaa la njariñ tampon bi kenn na ko yor Cheikhuna al Xadim radiyallahu kon mbokk yi nañu jéem a góorgóorlu baax a baax li may jeexale ab dénkaan la mbokk yi nañu jéem a tënkuwaat ci li ñu xamee ñun murit ci aw yar ci ab yar ci ay teggin ci ay melokaan rawat na ndaw ñi fuñ masaan gis dawul murit boo nekk sut rek xam ko boo ko xoolee rek xam ne kii ab taalibe la am murit la ci léppam bu ñu ko dara dara xañ bu ñu ko jamono xañ bu ñu ko ay télévision xañ bu ñu ko roy ñu ñu wërta roy xañ ci léeg nga dox ci mbedd yi gis defeenu xale woo xam ne dëgg-dëgg da ngay jaaxle dangay jaaxle lii lan la nañ ci bàyyi xel Sëriñ Tuubaa na fees suñ xol yi na ko fees bu feesee suñ xol yi dell leneen du am ci ñun place waaye damay faral di wax xale yi na leen boo tabaxoon kërug junniy mètre nga wut fa appartement boo xam ne mbëri làmb yi ñoo ko moom wut beneen appartement fecckat yi moom ko wut beneen appartement musicien yi moom ko wut beneen appartement équipe bu football yi moom ko est ce que kër googa ñeme nga faa tabaxal Sëñ Tuubaa appartement mu dëkk gaa yooyu ñeme nga léegi suñu xol yi kon bu ci Sëñ waaye bu dee buñ daanee buñ daan suñu mbër daanoo ñuy sibile ci dëkku Sëñ Tuubaa bi di yoxoo ko tàccu war nañoo salaat suñu jàngoroy xol ne Sëñ Tuubaa ñëw ci bu dee gañee équipe bu football ñu mer équipe bépp la ñuy bëggandoo ba buñ ko gañee ñu mer bu gañee ñu kontaan war nañoo salaat suñuy xol ba xam ndax Sëñ Tuubaa ngi jola déet parce que Sëñ Tuubaa bu occupé xol kon nañu jéem a góorgóorlu di consulter suñu xol di xoolaat suñu bopp xool suñu dund nag suñu doxin ngir ñu mën a tënku ci li Serigne Touba bëggoon ci ñu radiyallahu anhu mbokk yàlla ñu yàlla defal tawfeex ju toll ni ki bu yowmal xiyaamee fu Serigne Touba geesu gis ñu fu ñu geesu gis ko yowmal xiyaam yàlla nañ bokk ci ñi Serigne di ndamoo ca yàlla bu ñu am gàcce aaj ajjanay gàcce wala ajjanay kersa mooy demal rek yow moom xam nu ma lay def yàlla ñu ci yàlla musal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu